chaque fois ñu jàpp ni am na loo xam ne warees na ko communiquer ak yéen wala bokk warees na ko leeral war a waxtaan ci ak bu ngeen seetloo dañoo jóge ci campagne législative ñu war a installer bientôt li nga xam ne moom mooy assemblée nationale yàlla def yépp ngeen liggéey ci liggéey bi mucc ayib kon ñoo leen ci sant di leen gërëm

information yoy te muy njariñal askan bi ñun naka lañu ci communiquer ba ñëpp jot parce que réseaux sociaux yi lool rek la aujourd'hui c'est vrai am na moment bo xamantene moment wu kaf la mais am na xamantene faw ñu utiliser influence as tout ku ci nek bu sa compte am nga jàllale ci information boobu ba ñëpp xam ko parce que dafa am lu am solo lu am tay te souvent

bi nga xamantene ne ñoo ngi campagne agricole bi ñu jox nit ñi jiw jox leen engrais loolu mbir mu rëy daf ci amoon mbokk yi bu ngeen fàttalikoo bi ñuy soog a jot ci nguur gi en mars avril 2024 dañ ci teg un mois juste rek ñu war a dem ci li nga xamante ne moom mooy préparation campagne agricole ñu tuddee ko pré campagne loolu nag daf ci am rôle boo xamante ne état daf ko ci jouer

jox ko ñëpp ñi nga xamante ne ay baykat lañ te ñu soxla woon ko ñu jaaye leen ko prix bu yomba yomba yomba ñoom baykat yi ñu am jiw yu doy am langrais bu doy kon bu suuf si baaxee nawet bi baax war nañoo mën a am bay mu baax ren yàlla dimbali ñu nawet bi baax macha allah bi nawet bi baaxee te suufu Sénégal ñëpp nangu nañu suuf su baax la suñu baykat ay jàmbaar lañ xam nañ bay am nañ ci expérience ñoom ñu dem ànd ak nawet bi bay ba nga xamantene nak liñu li bay ren gannaaw ba len nguur gi accompagner ci walum engrais ci walu semence certifiée ci walum phosphate liñu ñu bay ren ak ndox mi ni mu ñu am mbay mu baax ñu bari ne nañu mbay ren mi kat ah mbay mi baax souvent mbay mi bu baaxé li nga xamné mo daan sonal baykat yi mbokk yi moy buñ bayé gerte ba paré parce que exemple bobu rek lay jël problème biñ daan am moy ñaata lañ leen koy jaayé ak ñaata la leen ci état di dimbali pour buñ koy jaay-njaay ren nguurug Sénégal pour la première fois de son histoire depuis son indépendance il a franchi franchir la barre des 300 francs CFA le kilogramme mais dinaa parce que dafa am fini de jógee fi ñu en 2012 2014 li ma wax ay chiffres Il y xam ne ngeen vérifier 2012 2014 kilo gerte gi gi il mooy 2012 ba quinze sax ngeen baal ma ñetti at yooy bi mag Sall yi soog a ñëw ñetti at yooyu mu fi def passé loolu kilo gerte gi 200 francs muy ñeent fukki dërëm muy prix plancher maanaam bu néewee ba néew li nga koy jaayee mooy deux 200 francs baykat yi à l'époque am na ñoo ko rafetlu am na ñoo xam ne neewoon nañ ko mën na koo gën a yokk Macky sàll nguurug Macky Sall di dem ak ñoom 2016 ñu yokk ci ñaar dërëm 10 francs ñu jaayee ko 210 francs 2017 nous avons 210 francs 2018 non. En 2019 nous avons 210 francs nous avons fukk ak ñaari Nous avons lañ doon jaayee kilo gerte gi di prix plancher Nous bu tuutee ba 210 francs En lu ko 2020 Nous avons 40 francs nous avons 250 francs pour les plancher en 2020. 2021 mu respecté Vous 250 francs muy prix plancher bi ko Vous manam loolu nekul nguur gi moy jaay nguur fixé ne yow bi bay nga pare am nga de Vous kilogramme bi nga 250 francs manam kenn sañu la ci fay lu Vous 250 francs Vous yow 250 francs ko 600 vous avez gisee ko 500 jaayal vous gisee ku ko jëndee 300 jaayal waaye lu avez a 250 francs waruloo ko ko jaayal loolu en li en 2020 2021 également nguur gi fi nekkoon defaat loolu yóbbu ko 2250 francs 2022 ñu avons ci 275 francs CFA 2023 ñu yóbbu ko 280 francs CFA ñun ñu 2024

ñu accompagner leen aussi ba transparence am ci ba képp kuy baykat war ci am nekul ap politicien bu tuddu Sadikh Top rek moy dem ñu jox ko tant de tonnes mu def ko ci poosam wala def ko ci gafagaam xool nu mu koy séddalee leen li mu yobu ci ay tolam dédé dañ ko défé no xamante baykat yi ci bopam ñom ñoo ciy jot loolu amoon na fi waxtoon nañ ci tay ñu dem ci li nga xamante gannaaw bañu défé nawet ba paré ba nawet jeex ba baykat yi dekki am seen gerte téye doon xaar ñu ubbi campagne arachidière bi manam naka lañuy ñuy jaayee

waaye Sonacos bu koy jënd lu ama am solo lu koy jëndee ñu ne ko ñaata la mu ne 305 francs CFA le kilogramme Manam, yokk nañ ci juróomi deureum ci suñu at mu ñëk biñu ñu nguur géeg léegi ne gerte gi kat prix plancher bi c'est 305 francs CFA le kilogramme Manam, képp kuy baykat nag ci ñëpp jot lo am ci gerte ren prix bi gëna tuuti bi nga mëna jaayé kilo bi moy juróom benn fukki deureum

en jusqu'en 2023 Macky Sall bi 200 la fi fait. ba 2015 200 francs la doon jaay prix plancher bi Pilogrambi, kilogramme bi dem ba 2020 la soog est egg 2050 2023 bi nga xamantene la fi muju mu 2080 moo tax bu né donc mu proposé 2080 li nga xamantene ñom ñoy nous yi ren nak ñun suñu première année nga ce n'est pas évident fekk nañ fi comme gu loof fekk nañ fi réew mi nekk ci ay jafé jafé waye ñu ne baykat yi nga xamantene ne won nañ leen ne leen kat inshallah rabbi ren prix dina bax ñu joxon leen semence joxon leen phosphate joxon leen engrais dinañ fexé ba ma ngeen mëna jaay prix bu bax bo xamantene kat du ngeen ci gañu waaye ñi jënd aussi duñ ci gañu état bi proposé daal donc prix bi ñi jaayé ren gerte gi kilogramme bi bu touté bu touté 305 francs CFA li lii ku xam bay ngeen laaj baykat yi dañ leen xamal ni jogu bu reere rëy ndaxte ko xamantena am nga

Ousmane Sonko gannaaw recommandation au président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye jàpp naa ne kon baykat yi war nañ cee mën a gis seen bopp waaye bokk yi daa am lu solo yéen ñii ñi nga xamante ne yéen a ñuy seetaan bu dee ñun chaque fois bu amee décision boo xamante ne nguur gi jël na ko ñun bu ñu ci àndul souvent dans les réseaux sociaux dañ naan lii kat bëggeewuñ ko nii ànduñu ci de cette même manière décision yu salutaire bu amee.

dañ ci war a communiquer ba sénégalais yépp xam ne lii kat mooy décision yu baax yi nga xamante ne gouvernement bi jël na ko ñépp jot ñépp am la bonne information ñu amplifier ko amplifier nekkul wax lu amul déedéet amplifier mooy fexe ba ñu sonal nit ñi ci seeni nopp gis-gis ba ñu xam ne information bi bu am la bay baykat yi jot ci ba képp kuy baykat képp ku ñëw naan la jaay ma kilo gerte 300 nee ko jàllal nële nguur gi da koy tere li nguur gi wax mooy 305 francs au minimum ku leen a jaayee ma ko 310 mën na ne. jaayee mako 350 mën na 400 mën na mais lu gëna a 305 mënu la c'est interdit loolu moy information bi kon prix plancher bobu nga xamantene Le gouvernement bi génnee nako pour la première fois de son histoire mu 305 francs CFA un nguur gi daat né sen objectif moy gerte gi egg ba kilo 500 francs prix plancher ngir baykat bi mën cee yëg parce que mbokk yi gis nga baykat. yàlla xam ne ne bu yëgee boppam ca la muy bay mu gis ci boppam bu baax a baax réew moomu day naat day jëm ca kanam parce que am mbay mooy doxal am réew dëpp dëkk yoo mënti dem fa euh, la nga fay fekk man dem naa états uni dem naa Canada dem naa Europe gis naa la fa xew yépp ci wàllum mbay ñooñu liñ ñu rawee ci mbay dafa yéeme te dara waralu ko mooy ñu toog teg baykat bi dans des condition adéquates te pour loolu mën a am faw baykat bi nga xamal ko ne boo bayee ba pare li ngay bay dinañ ko mën a jënd ci prix bu baax lolu nak li tax muy meuna nek moy di nga jot ci souf ci yow baykat bi te lolu ñu ngi ciy liggéey yow di nga am semence certifiée am na lu ci jotta liggey di nga am engrais di nga am phosphate am na lu ci jotta liggey bo boo ba paré li nga bay war ko proposer dinañ fexé ba bokay jaay nga jaay ko prix bu baax bo xamantene askan wi du ci gaañ wa mbokk li moy li nga xamné mom le la gouvernement bi def ren pour la première fois muy première campagne arachidière légui nak buñu topé ñan dinañ dugg ci sujet yo xamantene amala ñu njëriñ duñ ci avancé en rien alors que amal amal bi na gis information ñu cette année une très grande décision a été prise pour le pour sa première campagne arachidière le gouvernement du Sénégal à sa tête le premier ministre Ousmane Sonko sur proposition sans doute du président de la République le prix plancher de la recherche de 2 kg est à 305 francs CFA nous nous ama am solo nous daal laa Nous partage ak Nous xam rabbi ñëpp bàyyi xel nous li ñu war def nous des taxawu nguur nous ci nguur ñun également suñu role mooy ñu communiquer ci nañ ca war a defee jàppale nguur gi mu liggéey te nam war a liggéey lii daal mooy li nga xamante ne moom lañ leen indi doon di leen sant di leen gërëm